billahi min shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibé yi mbokk yi teewlu ak seetaan seen seen com indi na leen émission bu bees tàq xam-xam jotaayu xam-xam émission la boo xam ne si dañ ciy waxtaane mboolem lu jëm ci wàllu xam-xam ci xasida yi xam-xam ci tur xam-xam ci garab xam-xam ci feebar daal doomu aadama lan moo koy saafara ci alxuraan karim ndax yàlla moo wax ne fi kitaab min shay'in te bàyyiwul dara boo ko defee kon comme téere bi bàyyiwul dara lépp dañ koy delloo ci alxuraan karim ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ngeen ci ànd ak sëñ Mortal Tawfeex ci bëgg am ay leeral rek mën nga daal di woote ci numéro boobu di jàll ci kanamu écran incha allah yàlla ak mbaaxam ngeen jëf